what's up guys On continue le combat, chers soldats. On continue la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution sénégalaise. Vive la révolution. Vive les journées historiques du Sénégal. Nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer de l'otage. Nous devons nous libérer des des oppresseurs, des assassins qui ont tué, qui ont tué nos frères, nos mamans, nos sœurs, nos parents qui ont brûlé nos maisons nous devons pour pour ce moment-là faire le lu ñaaw le lu ñaawteef lu le def kon chers sénégalais chers sénégalais encore une fois nous ne devons pas baisser les bras Nous devons nous loxo bu ñu taxawee dee bu ñu toogee dee bu ñu noppee dé bu ñu dama ne Sénégal yaay a jur nañ ay doom yu baax ay doom yu dëgër ay doom yu mëna a ay doom yu mun a xeex ay doom yu dul dellu ginnaaw kon nag sama gars yi leen di xamal continuer ce combat là ce combat là tant souhaité par toute l'Afrique. toute l'Afrique est derrière nous toute l'Afrique nous regarde nous devons nous révolutionner parce que depuis 1960 il n'y a jamais eu jamais eu des fils du Sénégal qui se sont révoltés qui se sont indignés qui sont sortis dans les rues occupés de lui la rue pour une révolution il y a jamais eu de révolution sénégalaise tey nii dafa jot ñu am une révolution une révolution sénégalaise ñun ñëpp ñu taxaw kon nag bu kenn des ginnaaw ñu ñëpp taxaw ñu xare ñu xeex jële fi dinosaures yi jële fi bandi salté yi libérer le Sénégal libérer Ousmane Sonko parce que vous n'êtes pas sans savoir que Ousmane Sonko est en prison parce que Ousmane Sonko pour l'instant deux ans de prison ferme nous l'avons fait, ñuy xeex dañ koy par la force doole deux ans de prison ferme ça montre que nous nous nañ Ousmane Sonko n'importe quel moment Ça, sous la bu ñu yeewoon un ancien café bu leen saf sucre, dem Ousmane Sonko que le peuple bi peuple parce que verdict bi peuple a dafa verdict verdict nous avons def nañ lu nous neex verdict nous, ñun tamit dañuy nous avons kenn parce que Sénégal c'est baay c'est un sen nijaay yi sant ñuko ko Sénégal ñun ñepp ko bok comme nuñ koy waxé duñu nangu tok don ay doomi xaram ñu ñuy sas duñu def lu leen neex duñu tek ay musiba duñu tek ay gàllankoor di jàpp sañuy njabot di tek ci kasso bi duñ ko nangu tay te duñ ko nangu ëlëk donc chers sénégalais waxna leen ne leen buñu taxawé dé buñu noppé dé buñu dawé dé buñu gëmé dé dañu wara taxaw continuer ce combat là ce combat là tant euh, entamé dañ ko wara continuer jusqu'à l'extinction du euh, de la libération du Sénégal jusqu'à la libération du Sénégal dañu war continuer ce combat Masha'Allah. allah démb def nañ lu musul am Sénégal mais tey dafa war a gën a dëgër dafa war a gën a yokku dafa war a gën boy dafa war a gën a tàkk tey la ñu journée noire ñëpp na gox yëpp génn intifada guérilla urbaine le Sénégal yëpp génn occuper les rues Masha'Allah. allah gis ngeen force bi reste au peuple sénégalais ñoom ñooñu doon menacé non force reste à la loi tey xam ni force ne restera jamais à la loi force reste au peuple sénégalais digne intègre mon peuple bi taxaw di xare pour Sénégal pour libérer ce Sénégal dama ne Mali ñi ngi ñuy wa Burkina ñi ngi ñuy wa Algérie ñi ngi ñuy wa Tunisie ñi ngi ñuy wa Égypte ñi ngi ñuy xel Sénégal Afrique yëpp ñi ngi c'est le moment où jamais de se libérer une bonne fois pour toutes ou de sombrer dans le déshonneur, de sombrer dans la mort, de sombrer dans la, euh, dans la promiscuité, de sombrer dans la pauvreté aggravante, de sombrer dans la, dans la dictature. Macky Sall, cette année, nous continuons mandat, nous mourrons tous, nous mourrons tous dans la dictature. te duñ ko nangu tey te duñ ko nangu dans ndax Sénégal Macky Sall du ñëw di ko yàq ay njabootam du ñëw di ko yàq kon nag taxaw leen ñu jaayante ko ngor jom fulla Faïda, libérer Ousmane Sonko et libérer le peuple sénégalais, libérer la nation sénégalaise. Il est temps, c'est le moment ou jamais. Vous kenn tok, On n'a pas encore gagné ce combat. On n'a pas encore gagné ce combat. On a franchi des pas énormes. Et pas yu doy waar liggéey nañ ko fii démb extraordinaire macha allah mais nag labbali fas taxul passe, raw ndax fasa nga ca kanam kon nag dañuy continuer li ñu def yokku cere dolli ñeex ay ca na boy na tàkk partout partout guérilla urbaine par groupe de cinquante par groupe de cent parce que dañoo war a dugg biir Dakar Dakar plateau dañ fa war a yegsi fi nga xam ne moom may centre ville bi dañ ko war a récupérer tey tey aujourd'hui on doit récupérer euh, Dakar plateau donc les tey Dakar plateau la moxañe nañ Pikine moxañe nañ Géejawaay moxañe nañ Yëmbal muxañe nañ Kaolack nañ nañ Thiès nañ malgré qu'il y a eu plus de 15 morts Antoine ñàkk jom di 9 morts 15 morts 15 personnes qui ont rey ñoom leen ay donc encore une fois on continue ce combat là on va pas lâcher nos martyrs duñu trahir suñu martyrs duñu trahir ñi nekk ci kaso bi duñu trahir Ousmane Sonko mais duñu trahir le peuple sénégalais on doit continuer ce combat on continue ce combat saf na l'en sap motax tay ñu genn armée bi tek ci mbéd yi armée bi nak bu len len tiit bu len len ragal duñ len tiire duñ leen rey ñooñu yoruñu ay lacrymogène yoruñu dara l'armée est avec le peuple sénégalais et je vous le dis nee nañ armée bi nee na bu tangé jër dañuy nangu ji dëkk bi armée bi lool lañ wax parce qu'ils sont avec le peuple sénégalais l'armée n'est pas avec Macky Sall et l'armée ne va pas tirer sur le peuple sénégalais. Et ça, c'est sûr et certain. L'armée, on ne l'a pas formée pour tirer pour le maintien de l'ordre. On ne l'a pas formée formé pour tirer sur les Sénégalais. L'armée, c'est pas le maintien de l'ordre. L'armée, c'est pour garantir nos frontières. Mais c'est pas le maintien de l'ordre. Comme Macky Sall, respectez-vous les lois, respectez-vous les règlements. Nous devons garder ça, garder ça. journée, taxe en journée journée taxe en nday journée toc sen cottu nday ba ngeen journée sen nday ba ngeen bi combat encore une fois on envahit les rues récupérer la capitale du Bir, parce que souvent 20 h foofu lañ joxante rendez-vous personne le peuple ne doit pas trahir l'objectif de la nation c'est de retrouver de se retrouver demain inshallah, à 20h GMT Bir, palais de la République pour une soirée dansante pour une soirée de retrouvailles dansantes historique pour une seule fois comme nous ko Sri Lanka comme fait, comme nu Burkina Burkinabé libéré ce sera la soirée de la libération du peuple sénégalais la soirée de l'indépendance historique de la de la révolution la soirée bombasse, bu nara tu ma massa kon a dit, encore faut nous parce qu'on s'est donné rendez-vous ñun gor wet sommes nous nous, nous à 20h, on doit se retrouver à la présidence, on doit se retrouver au palais de la République pour une soirée bombasse, tot, ami, on continue, tot, rajaxe, bombarder, tot, lac, Encore une fois les gars, on lâche pas l'affaire, duñ fi xex di taxaw. Duñu lek Tout le monde dit que le Sénégalais a une ambition, lu tambalé du continuer. Lolu nak dañuy burkinabé yi nee nañ sénégalais moytul bu jógee da ngay kontaan mais léegi mu toog dafa gaaw a découragé sénégalais du continuer lu muy def sénégalais jomam euh, soriwul loolu lépp nag ay jëw la yoo xam ni mun nañ koo dindi mun nañ wan ne Afrique ñoo fi dàq révolutionné Afrique ñoo fi def lu kenn deful ñoo fi dàq xeex raw waa Mali Mali dañ ko doggali dañoo nemmali waa Mali dañoo nemmali yàlla defal leen ndam waa Burkina dañoo bombardé yalla defal leen ndam wa Algérie dañoo nokku ci jëm àll ba yalla defal leen ndam wa Égypte ñom ne dañoo labali fas yalla defal leen ndam kon nak duñu tambalé di taxaw dañuy continuer ce combat là jusqu'à la victoire finale jusqu'à la libération de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko étant surve étant euh, euh, surveillé euh, comme du lait sur le feu ñi ngi fa taxaw lolu rek war na mën boucle boucle bouclier bobu nonu ñu am war nañu ñun def fa sañu bouclier humain bu fekkee nag Dakar mënuñu ko on appelle au renfort les Casaçais Nous ñi nga xam ne nañ loolu yàlla may leen ko ce pouvoir là de se battre de se de combattre l'impérialisme de combattre euh, les les les les tyrans de combattre ce dictateur qui est Macky Sall ba récupérer cette bastion sans pouvoir, nga xam ni ku fa jege ñu delloo la ginnaaw bu fekkee Dakar mënuñu récupérer Ousmane Sonko génne ko foofu libéré ko teel leen ñu wax ñun ñu kon nak bu fekkee ni waa Dakar duet gore wetilu ko gore bu fekkee ni yéen mënu leen dajaloo par des groupes de 50 intifada guérilla urbaine récupérer les rues dugg bir cité keur gor gui dàq police yi jëlee len fa ak force de défense et de sécurité yi reub len fofu noonu tebal len récupérer cette bastion encadré ko boucler ko taxaw fa di xaar comme nuko wa Casamance defee bo len ko mënul ngeen tel ñoo wax ñu wo en renfort la Casamance qui qui vont venir eux

bàyyi fu muy lekkee bàyyi fu muy naanee ñëw ci yow sa kër nga xule di xoole di seetaan ba bandi bi sa bandi salte bi fekk ko fa si sa biir kër jël ko fa dugal ko ci nekk tëj ko fa loolu moom war ngaa xoolaat sa bopp te loolu la waa dakaar nekk di dund parce que li nga xam ni Ousmane ko bi ngi koy dund bu leen fàtte ni Ousmane Sonko fa mu newoon Casamance da doon génn di wax ak waa Casamance di doxantu Ousmane Sonko bu mu duggee dakaar ba léegi mënutul génn mënul doxantu ñu ngi ko fay agressé sàcc nañ carte téléphone am sàcc nañ machine am lépp sàcc nañ ko ci moom mënul def live mënul wax munul yéy mënul yàbbi loolu nag dañ ko war a dakkal Dakar génn leen Sénégal génn leen génn leen occuper les rues loolu dañ ko war a dakkal dama ne na Macky Sall delloo Ousmane Sonko ay téléphone na Macky Sall delloo Ousmane Sonko liberté am na Macky Sall delloo Ousmane Sonko liberté am dox nu ko neexee ci dëkk bi ndax citoyen la dafa am droit dox li nga xamni mo am muy mascarade euh politico judiciaire bu ñu teg Ousmane Sonko du dëgg du yoon 2 ans ñi ngi téye Sénégal di wax naan ñom dañuy def procès procès de viol et de violence dem ba euh, euh, euh, last phase ñu ne amul vol amul viol amul violence di taxaw di wax sen affaire tot cottu ndayam yoyu naan ay xoma euh, corruption de jeunesse sen tourou nday depuis que Sénégal existe y a eu des centaines de milliers de sénégalais yu genn dundu musuñu juger doomu adama Sénégal ci corruption de jeunesse dinañ toj sen cottu nday dinañ Dakar seen nday Macky Sall jugeam yeeg ñu ngi leen di rëbb dinañ tal nday sen bay tal sen yaay tal seen nday sen keri tal sen jabar yi taal ñu kat sen cottu nday ngeen depuis que Sénégal existe amul doomu adama buñ musse juger ci palais de justice ci corruption de jeunesse c'est la première fois dans l'histoire barke alcorane duñ ko nangu billahi duñu dund ak suñu bakkan yi mu jaral ñuko ko ngeen a suñu justice teegal nday sen justice def fa seen politique ak ak seen i fen ne da ngeen di sacrifier un leader politique ne da ngeen di sacrifier un un opposant ne da ngeen di sacrifier yaakaaru jaam yi ne da ngeen di tas yaakaaru jaam yi dinañ toj seen cottu nday laa la wax yow Macky Sall yow sa njaboot yow koo àndal di nga xam ne amoo ay góor ay góor jigéen nga am bu ñuy katt nday réew mi da ngeen naan dellu si seen pooju nday cocc ngeen di def te dañ la génn nday réew mi nga ne mandat bi dañ la koy ñaan nga jox ñu ko ñu ñaan la mandaa bi nga joxee ñu ko nu la neexee duñ la ko ñaan de dinañ toj sa cottu ndey nangu mandat bi jox ko askan wi askan wi téye ko di ko doxalee lu ko neex jox ko ku ko neex ndax askan moom moom mandat mooy jox ku ko neex mooy jox ku ko neex kenn moomul mandat kenn baayam moomul mandat yaayam moomul mandat sëriñam moomul mandat mandaa bi Afrique moo ko moom mandaa bi Sénégal moo ko moom Sénégal ñoo koy jël jox ko ku leen saf mandat bi kenn moomu ko te duñ ko ñaan kenn te duñ ko saraxu kenn mandaawu Sénégal la mandaawu Sénégal la vert jaune rouge moo ci ne ak étoile mandaaw Sénégal la du sa mandat bàyyi du sa ndonnoo yaay dinañ toj sa cottu ndey yow Macky Sall nga delloo nday mandat bi mandat bi doo ko yeggale yow comme baadoo la nga xamoo sa bopp ku xamul buur saay na ñu ne la buur dee na ku xamul buur dee na ñu ne la buur ñëf na ndayam buur lafu na dane nangu nday mandaa bi ñun le peuple sénégalais ko jox ko ku ñu neex nga xam ne mandat bi du sa mandat baay sa mandat nday du sa xam da ngay jaawale mandat ak mandat bu ñuy yónnee poste mandat boobu ñu doon yónnee dama yaakaar ne mandat boobu nga yaakaar ni sa bàyyi la fi bàyyi mandat boobu noonu loolu mandat xaalis la mandaa bii mandaa bii ay deret na ci tuuru ay bakkan na ci rot duñ la ko ñaan dañ la ko dénk moomoo ko du sa ndono te di toj sa cottu ndey delloo ñu sa mandat mandat bi ñun ñoo ko moom ñu peuple sénégalais kon nag les comme nu ma ko waxee on continue sa combat on lâche pas l'affaire on doit occuper les euh, tey ji objectif bi mooy dugg biir dakaar parce que suba dañoo bëgg a récupérer palais bi objectif bi tey dugg biir Dakar autorité yëpp dakaar lañu dëkk ñoom ñëpp ñu ngi biir dakaar donc les on récupère Euh, déjà comme on a récupéré presque tous les quartiers du Sénégal l'un de ci par des groupes de 50, nous infiltrons Dakar doukou Dakar Talendaem, ndayem récupérons ndayem récupérer Macky parce que tant que Dakar pas Macky Sall du Nous récupérons récupérer Dakar Medina, Fas, Grand Dakar Gultape, euh, Dalarme, euh, euh, de etc etc Point E etc Sacré-Cœur tout ça à la révolution levez-vous ñun ñëpp soldats parce que nous allons récupérer tey tey tey tey tey balaa 20 heures on doit récupérer Dakar en attendant d'autres groupes ñu dem récupérer ji cité Kër Góor gi. cité Kër bastion boobu dañ ko war récupérer maa ngi leen koy wax gars yi récupérer cité Kër Góor en attendant ñu dugg biir Dakar récupérer nday Dakar suba incha 20 heures ñun ñëpp biir palais de la république biir palais de la république piscine party night.

peuple ku ko défier mu toj sa cottu ndey peuple ku ko songu mu daqaar sa ndey peuple ak loo mun a day la ala wax force de défence de sécurité force sax de de de Lucifer bu ñëwoon peuple bu déterminé wu ku dugg ci moom mu toj sa cottu ndey pini la dama ne Macky Sall xam nga sa bopp xam nga ni peuple du moroomu dara peuple du moroomu loo gis ba ngay yuuxu fii di wax di nappaate naan ay am na ay hélicoptère am naa ay bazoka am na peuple bi toj na sa coxtu nday te génnewoo bazoka génnewoo hélicoptère génnewoo ay lakki xoolal yaa ngi bëgg a dee kon xam nga ni peuple gisul lacrymogène gisul hélicoptère gisul ay ay drone euh, lacrymogène ak sa tuuru ndey amoo mu fen rek ngay def fen rek sàcc ngeen ndey alalu réew mi yëpp jël ay milliards ne da ko def ci armement déttiru na ndayam jox ko seen jabar yi di ci katt doomu katt seen nday yi loolu rek ngeen di liggéey yow Macky Sall yow ak sa njaboot sàcc ngeen alalu askan wi yëpp yëpp katt ngeen ndayam dinañ toj seen cottu nday kër yi ñoo ko moom suñu alal la dinañ taal ndayam comme mënuñu cee jot doo leen ci jot yéen it dinañ taal nday kër yi parce que ñoo moom kër yi taal nday building yi taal nday lépp ndax loolu Sénégal ko moom sa baay moomu ko sa yaay moomu ko da ko fa fekk ñun ñoko mom ñun ñoo décidé ñun le peuple sénégalais kat nday lepp nous mom tal nday lepp luñu mom libérer peuple bi libérer pays bi libérer Ousmane Sonko ak libérer tek fa justice bu loyal justice bu ndul jënd justice bu nu corrompu tek fa suñu nit lu ko bëggé ñun ñoy décider c'est le peuple qui décide c'est le peuple qui continuera de décider donc les gars on continue ce combat on lâche pas on lâche pas on lâche pas on lâche pas Nous relax on lâche pas résistance résistance résistance instant yi ci révolution la nek révolution étape bu doy war la franchir mom moy dem nañ xex xex xex ba armée bi génn dama né deux mille vingt et raw té amul arrêté amul noppaliku amul taxaw amul wañéku on continue ce combat on continue ce combat il faut que Ousmane Sonko soit libéré il faut que le soldat Ousmane Sonko soit libéré digne fils du Sénégal digne fils de la nation donc il faut nous libérer Ousmane Sonko Ousmane Sonko est en prison Ousmane Sonko est en prison il est emprisonné libérez Sonko libérez Sonko libérez Sonko libérez Sonko libérez Sonko libérez Sonko libérez Sonko Aïcha, aïcha, aïcha, aïcha, aïcha, aïcha. Aïcha, gars yi libérez Sonko aïcha, aïcha, aïcha, aïcha, aïcha. góor yàlla yi ana mu ana jigéen talaatay ndeer yi ana jàmbaar yi ana gaynde yi ay ca libéré sonko nañu libéré sonko ay ca génn leen génn leen kër yi génn leen kër yi génn leen kër yi bàyyi leen fa góor yaay may ma ñeex yi bàyyi leen fa ñu feebar képp ko feebarul génnal kër yi génn leen kër yi bàyyi leen fa ñu damm ñu feebar ñu mënul jóg jóg leen jóg leen jóg leen génn leen kër yi génn leen kër yi génn leen kër yi leen kër yi ay ay ca ay ca ay ca mbedd góor la mbedd góor yàlla mbedd góor yàlla mbedd jigéen talaatay ndeer mbedd Amazon mbedd mbedd mbedd mbedd mbedd day fay mbedd day fay mbedd day fay freedom freedom freedom freedom libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko ayca ayca let's go gaynde let's go let's go let's go let's go let's go ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca liberé Sonko! liberé Sonko! liberé Sonko! liberé Sonko! liberé Sonco. Aïe, aïe, ne vital, libérez Sonko! on doit libérer Sonko! on doit libérer la nation, on doit libérer le Sénégal. Nous sommes lekkatuñu naanatuñu nalawatuñu liggéeyuñu jàpp sañu sœur yi def ay caga di leen katt ci hôtel yi di leen laal di leen toroxal di leen wàll ay sida lu ne ñu leen koy def sañu sœur yi amatuñ dignité ñu ci ministres yi leen yàq député yi leen yàq ñu nekk palais de la présidence ñoo leen yàq de la république ñoo leen yàq yàq sañu frères yi def leen ay caga def leen ay doomi xaram di leen jox ay dix mille quinze mille ñuy xeex ak morom di gaañ seen i morom ndax ay doomi xaraam yoo leen jël ci seen i alal toroxal leen appauvrir leen jël xaalis bi jox leen ñuy xeex ak ñun ñooñu bi ñu leen jotee ñu naan leen nervi nañ toj seen cottu ndey ku ci jot mbër bu ci bokk nañ toj seen cottu ndey artiste bu trahir nañ toj seen cottu ndey képp ku trahir nañ kat sa ndey journaliste corrompu nañ toj seen cottu ndey ñoom opération toj seen cottu ndey la tudd duñ ci bàyyi mbër duñ ci bàyyi journaliste duñ ci bàyyi Euh, euh, euh, nervi duñ ci bàyyi kenn en complicité avec le gouvernement sa donc opération toj seen pour me clair les gars on continue ce combat on lâche pas l'affaire détermination résistance endurance détermination résistance endurance occupons les rues accaparer la ville de Dakar centre-ville bi et demain, Inch'Allah, à 19h, on doit dajindaï les portes de la République, Doukoundaï bir palais de la présidence. Vous savez, am ngeen droit dox foofu noonu ngeen gis li nga ce que vous et pourtant révolution rek moo leen koy may. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère, les gars, encore une fois. Donc, on continue le combat. On lâche rien. Vous l'avez Commissariat de Dakar. Faut vous l'avez gori. Faut vous l'avez gori. foofu la ñuy fenal gor yi foofu la ñuy taqal gor yi dañoo war a taal ndayam commissariat central de Dakar nañ taal ndayam nañ ko moxoñe parce que foofu lañ toroxalee gor yëpp foofu lañu fenelee gor yi foofu lañ tiiñalee gor yi foofu lañ tuumaalee gor yi foofu lañ sosalee gor yi foofu lañ yàqee gor yi foofu lañ yóbbee gor yi tribunal foofu la ñuy njëkkee tot cottu ndayam bombardé ndayam lakk ko ba mu lakk jeex tàkk moom tribunal ba pour ñu mën a libérer gor yi fa xam ni dañ faa jaar ñu toroxal leen gor yi fa jaar ñu nga ñu sosal leen Donc, le donc commissariat de Dakar récupère la RTS xaram RTS en feu en ce moment là C'est bien on doit dañu war infiltrer vous toj sen nday gennel len fofu xaram télé récupérer la RTS buñu on attaque encore et fi nga après tribunal tribunal bi vous la doome xaram tribunal bi fofu la foofu moom mooy naanam association de malfaiteurs lu ñu ñu ñuy toroxal ñu ñuy yàqal soo ko foofu lañ ko pexelee ki nga xam ne mooy nit dof foofu lañ ko pexelee ki nga xam ne bépp góor bu nekk ci kaso bi foofu lañ leen pexelee bépp garmi bu nekk ci kaso bi foofu lañ leen sosalee foofu lañu leen pexelee donc bu buñ jógee euh, fi nga xam ne mooy commissariat centrale de Dakar dañuy dugg nday fi nga xam ne nag mooy tribunal bi moo xañe ndayam ba mu lakk dee tàkk dugg nday dajji nday seen bureau yi génne dossiers yi yëpp bu ñu paree nag Rebus, inshallah donc à Dakar les gars approchons-nous du côté de la République du côté de Dakar parce que demain inshallah on doit récupérer la capitale aujourd'hui et demain nous dugg biir palais de la République on peut le faire parce qu'il y a des nations qui l'ont fait des nations guerrières qui se sont battues et qui se sont libérées toutes seules que ça soit euh, la la la la Côte d'Ivoire def Kofi, Mali def Burkina def Kofi, euh,

tey naan day wax ak sénégalais nga xam ni ku ci nekk ci ñun war naa xoolaat boppam ku ci nekk ci ñun war ngaa am loo jomb ndax tey buñ demee ci nation vingt et unième siècle ku mel ni Antoine ñàkk jom taxaw naan day joxe des leçons de morale nga xam ne adduna tukki na adduna yàqu na lu yàlla doon wax mujjum jamono la ñu toll ndax Antoine doomu biiral la doomu xaram la euh, gigolo la caga la bordel la ak koyam bu ndaw moom la yore di xandal rek fenkat bu mag la Antoine depuis jeune ñu ko xam yëpp nijaayam ba ci ñaari nijaayam ne nañ ma lii waru leen bett xanaa da xamul Antoine Antoine kàcc rek lay def Antoine fii adduna yëpp fe fen lañ ko xamal maanaam ca xombol ca xombol ca bawol nee nañ Antoine dafa duul duul duul duul bañ koy woowee Tony ca bawol Tony la ñuy woowee Antoine dafa fen fen fen fen fen bañ koy woowee Tony moom la yóbbaale moo loolu moo tax Antoine doon gars yi ne nañ ay nijaayam ne nañ Antoine bu doonul woon avocat wala mu doon juge dina leen jaaxal ma ne leen foo leen ko teg ñu ne Antoine addunaam yëpp Antoine da koo duul daa fen a fen a fen ba gis histoire bu mu fekkewul sax taxaw fenal benn waaye ba génn ci nee na ay moromam yu mu doon àndal lañ ko doon Antoine fexeel doon avocat avocat nag moom boo jamono jooju ku mën duul mun a ratatati mën a fen dañuy wax naan yow am nga mun nga doon avocat Antoine daa duul bawol fen bawol fen ci xombol fen a fen fen fen fen fen bañ nan ko avocat dama dooni avocat bañ nan ko Antoine lolou motax Antoine comme duula mi ni dou rek lay def motax mu dem dooni euh, li nga xamni moy procureur nek na bawol nek na fa bawol manam ca Jurbel nek na fa procureur fen fa fen a fen fen ba am ay njabot yu fa fatu Antoine continue ñu yobu ko fële ca euh, ca ca ca Pikine Antoine duula fa doul doul doul ba musiba naaru lay Antoine fen rek lay def addunaam da ko fen nijaami nenañ ñu bokk ak ndayam bay nee nañ Antoine ci fen lañ ko xamee Antoine dafa duul wa day nu mu day Antoine adduna bi da ko fen Antoine ab cagal la jigaloo mun na duul dafa duul ndayam ba gàtt duul ba tuuti duul ba wow duul Antoine bàyyil duul Antoine say maam say nijaay ñëpp nee nañ bàyyil fen Antoine ñaari sa ñaari nijaay jot naa leen nee nañ nga bàyyi duul Antoine da ngaa duul yow duul nga leen nga dem fori nay Dior Diagne indi na len dang ko tak takk di kattu jor jañ ne nañ ñom seen bop après lañ doga si sa premier jabar mo len wax ni Antoine musul tak jor jañ ci lañ tité ñëw japp say nijaay dul leena dul fen leena fen ne nga tak jabar jabar indi fa jor jañ double kilo mu ak bunum gu reey googu dox rek lay def nga indi ko xombol japp ko diko depp dëpp ko dippi wala mu depp le dippi nak da ngaa tuuti yow yow ko la depp dippi ko depp dippi nga wo kong melni ni vivant jor jaay di depp sa nday depp sa nday kat sa nday ba ngay yuux ak sa koy bu ndaw doomi xaram bi ndax mun dul nga fen say nijaay ne leen da ngaa takk Dior Diagne tak te takkoo jaay Diagne xaram nga kat bu tegal sa nday ga yo Antoine ku sa nday ga doomu ciaka bi doomu deug sa nday bi nañ la ko wax nak pour mu pour pour pour mu clair Antoine ñak jom ci pexé rek Antoine ñak jom ci ciaka dem nga Paris fekk jigen gu bax ab naar xonk coy nga duul ko duul ko duul ko duul ko ba takk ndayam takk ndayam lekk nday boutique ba ba daane ko ba boutique ba tëju ca Champs-Élysées nga lekk nday xaalis ba daw Antoine doome xaram nga Antoine yaay doomu caga yaa katt sa nday yaa toj sa cottu nday yow yaa namp sa kuuru nday Antoine yaa dëgg sa nday Antoine doo ko baax yow spermatozoïde sa spermatozoïde baay baaxul ndax moo la jur doomu katt sa nday bi vingt et unième siècle ngay du rek di du rek duul nga duul ba doon ministre sinistre ministre duula duula duul baykat ay ay say moromu yaay duula duula duul di taxawaalu rek duula duula duul ba am bureau Antoine yaa ubbi sa tata ndey Antoine yaa katt sa ndey Antoine ñàkk jom yaa toj sa cott ndey Antoine Tony yaa dëgg sa ndey yaa ñapp sa ndey yaa daqaar sa ndey yow yaa ñambaan sa daqaaru ndey Antoine yaa toj sa cott ndey Antoine yaa daqaar ndeyam yaa sa ndey yow yaa màcc sa daqaaru ndey yow yaa màcc sa xuuru baay Antoine ya katt sa ndey Antoine yaa toj sa cott ndey Antoine yow yaa dugg ubbi sa tata ndey dugg ca di fay yaa sa ndey yaa toj sa cott ndey boo bàyyul fen doomu aadama yi di dee ngay wàññi di duul di duul di duul quinze nga naan neuf yaa katt sa nday yaa toj sa cottu ndey Antoine ñàkk jom yaa ubbi sa data nday yaa katt sa nday yaa màcc sa kooyu baay yaa ñàpp sa nday ak sa kooy bu tuuti bu ñuul yaa dëgg sa nday di katt sa moroomi yaay yaa toj sa cottu ndey Antoine yàlla na nga dëgg sa ndey dee yàlla na nga katt sa ndey dee te deew bu metti yàlla na nga katt sa ndey dee ki ba xotteeku juróom-ñaari paar yaa toj sa cottu ndey yaa namp sa xuuru ndey yaa dëgg sa ndey yow Antoine ñàkk jom doome xaram bi doomu dëjëw ndayam bi dinañ katt sa bunu yow yow Macky Sall dëgg sa ndey xaram Antoine ñàkk jom dafati lu salte moom Antoine ñàkk jom fekk ki nga xam ne mooy Pape Alé Gueye Pape Alé Gueye di doomu aadama bu am alal bu yàlla may yàlla barkeel ko mu amoon fii li nga xam ni moom mooy benn ab avion moom bu moomal boppam avion privé bu moomal boppam ah takk fi doomu ki nga xam ne mi ngi tudd Badiane fay Badiane fay nag mooy doomu Mbacke yu Faye Mbacke yu fay ak euh, mooy jur Badiane fay mu jël Badiane Faye may ko Pape Alé Gueye bu muy bu Pape Alé Gueye di euh, Badiane Faye di sëyal Pape Alé Gueye am ca ñaari doom yu góor ñaari doom yu góor la ca am moom Antoine ñàkk jom nga xam ni day baayam ci nee naa leen Mbacke yu fay bu leen fàtte Mbacké yu fay dafa investir ci jàngum ki nga xam ni mooy Antoine ñàkk jom ndax Antoine ba mu jógee ca Bawol duul ca Bawol fen ca Bawol bañ dàq ndaayam ca Bawol génn ko Bawol ne ko Tony kattal sa nday génn Bawol duul nga waa Bawol sëñ Tuubaa liggéeyu fi lii ba Cheikh Ibra liggéeyu fi lii nga nek bawol di wër digg bawol di dul bawol yak bawol ndax sab dul ñu wa bawol tax sa ciot nday outside da bawol nga génn bawol ñew biir dakaru dakaru nja jal job bi jaxaso yow Antoine ñak jom doomu tax sa ciot nday ba doomu biral ba sa bay biral sa yaay jur na ci yow kese nga xamni sa bay après bu mu paré ñu mu jur ñep dañoo loyal sa yaay ñu mu jur ñep dañoo loyal yow rek la yalla jur digënté sa bay ak sa yaay nga nek doomi xaram lool amna lu fu ko tek am na lu tax mu teg ko fa ndax xam na ni ku kat sanday nga xam yàlla xamoon na ni doomu feer nga xamoon na ni lu salte di ko liggéey ci kaw suuf xamoon na ni nitu safara nga tax yàlla moo bind nee na am na ñoo xam ni dama leen bind te kenn mënu leen changé safara rek danga caa bokk xeet googu nga bokk giri ba ni safara gu toj seen cottu nday nga giri ba nu matt safara ga yow Antoine ñàkk jom fa nga bokk loolu moom leer na te sa liggéey lépp lu salte la donc ki nga xam ni mooy Mbacke yu fay jër doomam ñu bàjjan fay may ko ki nga xam ne mooy Pape Alé bàjjan fay gëm nday sëriñ sëriñ rek suba ngor guddi ak bëccëg amoon bàjjan fay benn góor gu ñuy woowee tamsiir tamsiir boobu moo ko doon doxal ay mbirum sëriñ tamsiir moom la bàjjan fay di yónni muy dem ay Guinée di xërëmtu waate di xërëmtu Pape Alé Gueye di mu yónni ko Burkina moom bàjjan fay day yónni tamsiir Burkina mu Benin fu ne la ba eh, tamsiir di dem di wër ay xërëm di xërëm Pape Gueye di ko xërëm di ko joxi lekk di ko joxi naan di ko sëf di ko sëf Pape Alé di feebar di jóg di daanu di jóg di daanu ba nag kabat dee seddu guy bàjjan fayee ko def rey ndey Pape Alé Pape Alé Gueye pour bu lekk ay milliards am lépp lépp en complicité ak ki nga xam ne mooy Antoine ñàkk jom jamono jooju noonu Pape ale buñ ko commencé sëf ba mu commencé feebar di caddi caddi di dëggu ko daanu di dëggu ko daane ci la Antoine ñëw kooku mat na ko yaay bàjjan fay bu toogee ci tuunu Antoine ko Antoine tas Antoine jaar ci suuf jël bàjjan Faye du ko Badiane Faye di ko kattal boppam parce que nee naa leen Antoine ab koy ak demi koy la lii la yor moom Macky Sall ñoo tolloo koy seen koy nii la day nii nii nii nii la day bu ñu fu futee ko dégg naa Antoine am na benn gel bu mu doon katt gel bi ne ko waaye yow lii na mu ne <laughs> mu ne fekk daa koddal koy bu koddalee Antoine koy bi nii lay toll gel bi téye ndey di ko mu naan ko pour gel bi defal ko tengs tengs la tengs gel bi nee na ma Antoine tey bu futti bu mu futtee ko ma damaa tiit koy bi nii la tey nii la day man ma foog ne Antoine ko dalagul ndeke ne Antoine ko dal ba taxaw nii la koy bi day nee na mu naan ko tengsal ma tengsal ma nee na gel bi téye koy bi di ko def nii pour pour mu jóg munul fexe ba jóg gel bi ne ma Antoine di bi day di la yor koy <laughs> bëggee caga rek la bëgg nii nii la koy bi day dama koo tengsal ba sonn ak munul yokk munul wàññeeku ma ne ko waaye antaat yow lii lii yow nii ko dal nga di ma ne non non non ko dal ko ma ko dal euh, nii nii la koy bi léegi Antoine comme bu Ablaye comme bu Macky Sall bi doomu kat ndayam boobu na bëgg bëgg maire bëgg maire bëgg jigoloo la bëgg taat yi rëy doomu dëgg ndayam kon ki nga xam ni mooy bàjjen fay di doomu mbàkke yu fay di yónni ki nga xam ni mooy tamsiir di ko sëriñtu jàpp Pape Alé ab Alé Gueye di ko sëriñtu di ko sëriñtu ba Pape Alé Gueye sedd guy am nañ ci nag ñaari doom Pape Alé Gueye wut ab këram maison en face King Fat Palace dem jox ko ki nga xam ne moom mooy bàjjan fay fa la dëkkoon ak ñaari doomu Pape Alé Gueye yu góor Pape Alé ubbil ko ñaari mangasin boo demee Massalikul naan en face am na benn magasin jaay tiisi ñaari magasin la ko Pape Alé Gueye ubbil ay magasin yi cher ay tiisi yi cher ay alal gu bare bare bare bare la ci Pape Alé Gueye def kii nga xam ne nag mooy Tony di doomi xaram ba duuloon ca Bawol bañ dàq ndayam génne ndayam Bawol duulal duula laata rek la nekkee donc Tony jaar ci suuf di jël bàjjan fay doon fay am jëkkër am far Tony nekk faram Tony nekk fa macc rek lay def parce que kooy bi daa tuuti macc rek la nekkee ci ndeyam ci ci loolu di macc di maccal jan fay di maccal bàjjan fay di macc ba naan régalu ndeyu bàjjan fay ya régal fay bu amee régal sax Tony naan nday régal ya ndax moo tax gémmiñ gu gémmiñ gu barkelu la duur rek lay def day macc ba naan nday régal bàjjan fay ya moom moom moom moom bàjjan fay di sëriñ tuub Pape Alé Gueye ba Pape Alé Gueye faatu Pape Alé Gueye nag da doon wér ak ximmeeku xëm xëm ak ximmeeku di xëmmaliku ak a ximmeeku Pape Alé Gueye am na yeneen jabar ñu dañoo sëriñtu Pape Alé Gueye ba Pape Alé Gueye yeneen jabar yi mënatuñ jot ci euh, kii nga xam ne moom mooy Pape Alé Gueye moom bàjjan fay am na ñu doon wujjanteel mu jot ci mënuñu ay wujjam mënuñu jot ci Pape Alé Gueye tout simplement parce que dañoo sëriñtu Pape Alé Gueye ba ba pare muy ànd ak moom di ko gunge France lépp Tony di jël avion di dem France di lu lu lu lu bàjjan fay nekk France yëpp ci hôpital ba di surveiller pap Alé Gueye bu mu feebar Tony ngi ak mom ci hôtel ya Tony doomi xaram ji day jël avion dem ci France badjan fay di garder di doom mbacké fay di garder jëkërëm pap Alé Gueye bu chaque guddi mu jël ko génné ko yobbu ko hôtel kat ko dello ko bala fajar mu ñëw dello ndem tourné di def loolu la fa nekké won daw daw loolu lu ma leen wax di daw la dé daw daw daw la pap Alé Gueye de daaw elle était sa troisième femme mu ñëw accaparé nday Pape Alé Gueye di ko yóbbu hôpital di ko garder gérer jël xaalisam ba yëpp jox nday Tony Tony dem ba ba France di ko maccal di naan régal ndayam doomi xaram bi donc encore une fois ki nga xam ni mooy euh, Pape Alé Gueye jet privé amoon fi jet privé dafa jënd jet privé bi rek fa ca la faatoo ñëw takk bàjjan fay jamono ji bàjjan fay jabaru tóoni la jabaru tóoni bàjjan fay jabaru tóoni la bàjjan fay boobu ne woon jabaru Pape Alé tóoni di jaar ci suuf di këf ndey euh, euh, euh, bàjjan fay ñuy sëriñtu Pape ba faat ko jabaram yi premier jabar bi premier jabaru Pape Alé Gueye deuxième jabaru Pape Alé Gueye quatrième jabaru Pape Alé Gueye kenn doonu ci gis Pape Alé Gueye bu mu feebare bu mu demee ba war faatu ci la nga xam ni mooy moment bi nga xam ni ci la jabar ji kii di bàjjan fay doog a accepté ay wujjam pour ñu ñëw France pour mun a gis seen jëkkër parce que jëkkër ji day dee parce que tubaab yëpp nee nañ day dee ci la ñu doog a gis seen jëkkër ndax bàjjan fay doomu xaram bi noonu la faatoo pour muy clair Tony jël nday alal ga daw moom ak bàjjan fay dem takk bàjjan fay jabaru jàmbur ja dafa tënj ba pare rek Tony këf yóbbu jabaram la jamono jii ci jabaram la Dior Diagne du jabaram Tony mi ngi takk nu mu dee dee dee takkagum ne six jigéen six jigéen la Tony takkagum premier jabar jaa nga fa ba léegi duul na nee na takk na Dior Diagne Dior Diagne dajale ay sëriñ foo faux Sénégal daa yàgg am ay faux sëriñ nag ñu toog ci benn benn genre saal nan dañuy jéem a def mariage te mariage boo xam ni daganut du mariage bu jàkka mari ay doomi xaram jigéen góor jigéen yi nekk fa ñu nekk fa moom Dior Diagne forcé benn mariage bu ko kenn takkul defuñu ko ci jàkka defuñu ko ci jumaa góor jigéen yi fes faak caga ji bordel bi doomu kat sanday bi Tony Tony doomi xaram nga Tony toogal Tony bàyyil fen moo wax démb nga naan nga génn di duul ndi fen naan waaye ay xool leen Tony fenam yooyu way oui après bu ñu euh, euh, dafa am benn citoyen bu bu bu bu benn citoyenne tooñ benn citoyen ñu yóbbu leen ci ci douze citoyen après ñu àtte leen ci du ci ci douze euh, république citoyenne boobu noonu juge citoyen après nag juge bi ne ci tam yàq ndawam tam yàq ndawam ban ndaw ñu ne la viol amul ñu ne la violence amul kan lañ yàq ndawam xanaa sa nday la sa baay yàq ndawam jur la ci ngay doome xaram doomu katt sa nday bi xanaa yow yow yow yow la sa baay yàq sa sa ndaw nday mu jur la yow ngay doome xaram maanaam doom bu génn wut ci ci doomu njaaloo doomu kat sa nday bi nga ne eh, mu mu yàq mu yàq ndawam mu mu mu mu mu eh, benn citoyen ak benn citoyenne boo xam ne eh, dañoo dem palais de justice buñ buñ demee euh, palais de justice après ñu àtte leen après après après kii ñu jàppewuñ ko sax viol a mais dafa yàq ndawam dafa yàq ndawam kat sa nday yaa mun a dëgg sa nday naan ko to régal bi nga doon naan ko to régal sa régalu nday yëpp naan nga ko naan nga nday régalu Dior naan nday régalu Badiane Faye naan nday naan nday re naan bu kat sa nday nga mu neen yàq ndawam sa cottu nday yow Tony yow ma xaram bi yow Antoine ñàkk jom waaw déglu la ci fii yaakaar naa ngeen ko yéen ñëpp il faut ñu tegal leen ko ngeen ngeen dégg Antoine duule mi dafa katt ndayam dafa duula duula duula duula duul ba toj toj kii ak a mun dëgg ndayam

capital ndayam gars yi ñi ngi ci ay ñi ngi ñi ngi tux ay ñi ñi ngi nekk ci ay ay gaulois ak di dóor ngay kat sa ndey excellence ñaar dërëm lay jar son excellence Macky Sall ñaar dërëm la capital ndayam fa la ñun jëluñu soxlawuñu excellence ñun ay Marlboro Light la ñuy jël ay Marlboro rouge di jël ndey gars yi la ñuy jël laal di laal ay denil ngay kat sa ndey excellence sa excellence su ndey yow ak Macky seen bu nu ndey ak seen excellence excellence ñaa dërëm lay jar capital ndayam fële son excellence tux kook mu jeex mukkel nday excellence bi mu jeex sa dënd bi kat ndayam ñu jall ñun bu ñu tardé lak sa excellence pour nu nday ak sa excellence par lesquels se font man man waxum wolof fi de man sa duul ñi la ñu appelé calme ñi njàpp sa tott nday nga naan calme opération toj seen cott nday nga naan appelant au calme yow kii wér opération toj seen cott nday lañ wax nga naan après <laughs> au oh, calme yéen kii wér na gaa yaa ngi dem récupérer nday eh, capital bi nga naan ay au eh, eh, oh, calme dinañ ko calme sa data ndey nga xam ba may ñu tuuti rek yow toogal li ñuy seetaan sa data ndey lañ koy calmal léegi boo wax ji jeex nga naan ay au oh, calme kii wér du commerce et de la communication. waaw yow ana wolof bi man parce que man wolof laay teg. nga gis sa ndey fen nga sa àdduna bi da nga koo fen doome xaraam mu mu yàq na om benn xale bu benn xale bu yàq na om kat sa ndey yow dimbale nit yeeg réseaux sociaux réseaux sociaux sa baay Macky Sall sax mënuñoo arrêté katal sa ndey ak say réseaux sociaux réseaux sociaux sa baay defaru ko sa yaay defaru réseaux sociaux réseaux sociaux da nga ko fee fekk kattal sociaux ñooy katt ndeyam nekk ci réseau bi di saaga sa ndey te doo ñu mënal cottu ndeyam sa baay katt sa cottu ndey yoog Macky te mënu lu leen bunu ndeyam nga sonal ni di réseaux sociaux réseaux sociaux katt leen ndeyam doo na xaj réseaux sa réseaux sociaux ñëpp di liggéey mu nekk di wër di ba biiral sa yaay doome xaram bi Macky Sall do bay sen papa yi di jang mu kat nday mom nek nek nek mindan ci ci keur turondom sa nday si yaay di jang sa ndayam nek bob di jaay tiaf cornetu tiaf ak yu sew sew nangul jang profession sa bay ménagère sa yaay ménagère kat sa nday muju di di mindan ak gardien ak fomp ño jur Macky Sall yo tamit sa bay ah, ñu deglu mi ni 15 morts la du 9 duulu xo duulu leer xombalu gaa ngi nii déglu leen fenkatu xombal bi. parti boobu di Pastef. ah. du loolu lañ ko war a daane. luñ ko war a daane déglu. mooy yàq xale bu jigéen bi. yàq ndawam. waaye tamit am ay daan yoo xamante ni dinañ ko ko daan. oui <laughs> sama ndeyooy. yàq ndawam kay kii kii dafa dëgg nday bawol dafa fen nday bawol bañ génn ndayam yàq ndawam yàq ana ndaw aji saar waaye wa yàq ndawam waaye eh, ana bit meekay dagg leen lii waaye yàq ndawam yàq ndawam ay ay woy leen ko ay mbalax maan yàq ndawam mu kii ko ko yàq ndawam yàq ndawam ay ca ay ca ay ca gars yi nañ ko génne waay waay yàq ndawam lañ doon toppee boobu di chefu parti boobu di Pastef loolu lañ ko war a daane. Hmm. war a daane. lañ ko doon toppee moom waa Pastef du loolu lañ ko war a daane luñ ko war a daane mooy yàqum ndawam luñ doon toppee waaja du boobu luñ ko toppee mooy yàqum ndawam. luñ ko toppee du boobu luñ ko toppee mooy yàqum ndawam ko mën nañ ko génnee waay waay Tony sondu tudd Tony Tony yàqum ndawam. xale bu jigéen bi. Hmm. ndawam. Hmm. waaye tamit. ay daan yoo xamante ni dañ ci nga xamante ni. dooni ne dañoo yàq ndaw Adji waaye yow nga ne waa ji toppee ñu ko violence après waa yàq ndawam. wala ñu wala ki nan ko tu nday règle dafa naan nday règle ba xamul fu muy règle jigéen ñi. da nga day day Antoine koy bu day ni la yor da bëgg kat nga bañ mu ne la kama nga ne ko dama gis samay règle mu ne kama nan nday sa règle nan day nan nday sa règle ba mu jeex macc nday lepp lay jeex sa règle lay nan nday day anticiper sa règle nan nday règle jigen yu bari nañ Antoine nan nday sen règle yak ndaw du du de vierge yak ndawam wa ko xamni ne nga violé wul wa mais violé wul laalul ñamul wul yak ndaw mus ngeen dégg violewul laalul ñamul jegewul yàq ndaw mais yéen kii dafa kàtt lëfal ndeyam quelle incohérence xale jigéen bi hmm. yàq ndawam hmm. waaye tamit loolu hmm. wax lañ doon toppee kooku di chefu parti boobu di Pastef Sonko waaw lañ ko war a daane kon maanaam deful dara daane mooy jigéen bi yàq ndawam ah kon daa yàq xale bu jigéen bi yàq ndawam daa yàq bu jigéen bi yàq ndawam mais violé wu ko amul violence mais dafa yàq xale bu jigéen bi <laughs> katt la fal ndayam kii dafa katt la kii kii ubbi data ndayam kii kii kii buñ ko bàyyi dee kii moo gën a dëgg ndayam ci ci ci Sénégal Sénégal Sénégal kii moo ci gën a toccottu ndayam kii doomi xaram boo xam ne la dafa ñaf ndayam salte yëfu salte rek lay def dafa fen ndayam fen a fen a fen amul benn valeur doome xaraam la wax naa leen ko Mbàkke boo gisee Mbàkke Faye jox ko doomam mooy dafa mënoon duul Mbàkke Faye ko abaloon néeg yooyu mu doon fanaan néegu barak yu mu doon fanaan ca Grand Dakar ñaari tali pajaas taqale taqale taqale dëkk Gibraltar ñu abal ko foofu néeg mu dugg université di duul di duul di avance di duul di duul di duul ba doon juge dafa duula duul saltel yéen waa PDS kii bokk na ci ñu sànq Karim Wade ñu jël ko muy duula duula duul ba ci la doonee ministre nii fen rek lay def yàqub ndawam gis ngeen loolu kon nag gars yi au front descendons dans les rues occupons les rues et le peuple sénégalais libérons le soldat Ousmane Sonko one love à bientôt incha allah bu laajaatee leneen dinañ ko wax xeex bi am na solo fippu bi farata la de da ngeen koo def gars yi daw Macky Sall démb ci guddi la waroon jëli Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngi këram de yor kaamilam jàng di set wecc kenn ñoom mënuñu jur nday seen yaay jurul ku melni Ousmane Sonko seen baay jurul ku melni Ousmane Sonko bu seen ci ci suuf danan nan bu indilee Macky Sall mu ne gedd naa ko bu seen yaay yi ci suuf ñu ne ko indil ko Macky Sall wala Antoine ñak jom mi mu ne gedd naa ko muñ ko indiloon Sonko mu jël ko ne ki doomo naa ko ndax dom ju set wecc jang alcorane ben ar sar bo wax day wax di ci sar yi di tek masha allah jang Al alxuraan set wecc du satul ndialowul fenut xamewuñ ko lu bon ken japp ko ci triandé satchu alalu rew djup koku day bay bu nek bëgg nga ko jur nday ju nek bëgg nga ko jur Ousmane nga bir kërëm di durus di dus arxuraanam ne mom yalla rek lay gëm ak peuple sénégalais bi waye mënul genn mënul dox soxlam njabootam munuñu genn mënul live bugg na wax ak sénégalais yi lepp ñu xagn ko ko donc nañ libérer le soldat Ousmane Sonko qui est en prison prison artificielle prison fictive donc nañ ko libérer le plus rapidement possible et libérer ce pays incha allah gars yi leen ko acca acca acca nañ ko libérer nañ ko libérer gor la garmi la ay doomu xaram ay doomu cagabaar ay doomu sulaar waruñu mun a tëj doomu gor ak doomu garmi ndeyam daa seel baayam ba baayam làqu ndeyam a nga Casamance toog kenn déggu ko ci dara ku set way ku sel kon ñun duñu sétane ay doomu biral ay doomu ay doomu que ay doomu sen nday dañuy gor nangu duñ ko ci duñ ko ay libérons le Sénégal libérons ce pays là sortons massivement occupons les rues et récupérons la capitale encore une fois suba inshallah inshallah, ñu dugg bir fi nga euh, palais de la république def fa liñ Bégué happy jubilé mu nekk des dates historiques dans l'histoire euh, du Sénégal inshallah allah Ousmane Yalla rek la gëm le grand juge Moi le tout puissant seigneur ak le peuple sénégalais musu Fate, Gorla Garmila la garmi la foo ko déggee Yalla wax Yalla Yen rek le peuple Là dox jox sama bopp gor gor gor munu ko gor rek ko ko la laa gor rek ko Yalla. subhanahu wa taala moom ajawajal yaa rahman yaa rahim yaa malikal mulk ginnaaw moom man jox naa leen yéen peuple sénégalais bi sama xol jox naa leen sama xëtër jox naa leen sama bopp jox naa leen sama dund jox naa leen sama dee bi jaayante nag bokk ànd ak ñun tam di jaayante donc duñ ko seetaan ay doomu cagabaar ay doomu sulaar ay doomu wat watbang ay doomu samba alaar ay doomu xaram ay doomu biiral ñu ne dañ koy jéem a tëj ci këram wala tëj ci kaso dañ ko bëggoon dem jëli ngeen tàngal nday town bi ba mu tàng jër booyal ndem cent degré dans l'ombre muy bax-baxi ñëw seen bay ñu daw seen pooju nday daw Antoine doomu xaram bi génn commencé di expliquer tey dañoo génn armée kon ñoom force reste à la loi lu fa armée di des dinañ katt seen nday tot seen cottu nday pare guñu ay ca deuxième level gars yi ñu dem ñu dem ci dem ataaya mënul yem ci level level day wax xat level ngeen ñu jox ay ca deuxième tey la deuxième ataaya munoo naan level toog deuxième servez nous le deuxième serve nous le deuxième servez nous le deuxième après le troisième après yëy mbuum sotti ci suukar yëy ay ca dañuy ataaya ataaya ci mbedd mi la amul charbon ay ca bri ñun ñooy charbon yi pneu yi ñooy briquet almet pneu essence taal dañuy ataaya ataaya république bi la ñuy ataaya ndeyam nañ ataaya ndey république bi dama ne descendez dans les rues occupez les rues deuxième la ñu soxla deuxième bu sap sap bu bu tàng jër jër jër jër jër jër jër jër bu sap sap deuxième la ñu soxla bu ñu paree suba troisième tot tot ndeyam ataaya ba jeex ñu sotti ci mbuum ma sotti mbuum ma sotti ci suukar yëy moom mooy dugg nañ biir palais de la république bu ñu yee Mboumba mooy soirée dansante bombaas incha allah demain vingt heures incha allah bu ñu tas yaakaar nag deuxième lañ soxla ayca xelil leen ñu deuxième waa ayca ñu dem brr